sayyiduna muhammad def leen nii nii nu magal sayyiduna muhammad déglul ma wax la ne bindab Mustafa melamel bam tudd ngën ji mindeef gën ñëpp yàllaaw déglul ma wax la na bindëb Moustapha melamel bam tudd ngeen ji mindéef gën ñépp yàllaaw akmalahum xalxan wa ajmalahum xulxan wa asdaxahum xawlan fa yàllaaw sayyiduna Muhammad jikkoom ya ñoo mat meloom yaa sell cër ya cey Mustafa al Mujtaba al Muxtaar yàllaaw bur yàlla ne sàkkuloon misloom ca gaaya weyoon to dootu sàkkati misloom wóor na yàllaaw Seyduna Muhammad moom gàttul guddul xeesul ñuulul yaram waratax a tax cërëm yépp mat sëkk buy dox sut la yàllaaw moom daa mawul deful am njool rëyul ni fëtëx dooxul wagul setaxul sëggul fa yàllaaw sayyiduna muhammad moom rinkul lasul noojul gangul teyeel ya sewul kaloor ya papa moo jande yallaaw moo jëkk ab taxawaay day kem ñenantu xasab reem juneex jaag njamal yàllaam la yallaaw ak jaalu yàlla waak si ñu mu ñuul ma ko dar ak tuñ yu jëkk ak moo ñaay ba yallaaw moo ñaay ba day saf malax guy gaf ci xiinu marax reem jagga ceel na lampi gaasi yallaaw sayyiduna muhammad jëxam bay wandeelu bay safeeru badirin yedin ndoxum bañang maak palak baatam ga yallaaw yéenam yu sëq ya ànd ak melax lexam yu ratax yaak leeraay ba yallaaw sayyiduna muhammad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 yëpp sëriñ bi nee na moo ngi nuyu mbokk jullit yëpp tey ñaan tey ñaan gannaaw asbala gannaaw asbala ginnaaw auzu billahi mina seytaani rajim ginnaaw auzu billahi mina seytaani rajim ñu def fatiha ñu def fatiha def salaatu ala nabi def salaatu ala nabi ak fukki lixlaas ak benn yu ànd ak bismillahi rahmaani rahim ak fukki lixlaas ak benn yu ànd ak bismillahi rahmaani rahim defaat salaatu ala nabi defaat salaatu ala nabi ñaan sunu boroom. ñaan sunu boroom. ci darajay borom bis bi tax ñi daje tey. mu jotalal nu ko ci way dawlu yi. mu jotalal nu ko ci way dawlu yi. tàmbalee ko ci ñi fi mujj tudd sànq. tàmbalee ko ci ñi fi mujj tudd sànq. soxna Sala soxna Sala ak euh, mbokk moomu sëñ Xaadim doon wax. ak mbokk mi sëñ Xaadim doon wax. yi. ak kilifa yi yëpp rek kilifa yi jiitu yëpp ak kilifa yi jiitu yëpp rek bismillah bismillah باه بي الله كرام القراء وببقاء هي النبي سرى هبات ذي الجلال والإكرام لي خلدت مرقب الكرام إلي قاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن لست أسك أبدا في كوني جهر البديه عجبا لكوني inna allazi min al ilahi hustu xaaba an il kawni wa fiihi fustu dallani allahu ala allahi bila taqarrurin wa umri taqabbala xaabat xulaatiya maa alxusaadi muzammani xustu bila kasaadi wa xaaniya albaaxi bihi subura tijaarati ladayhi lan tabura لم ينعني ما باع عني الله فضلا والله إله إلا الله ki nga xamante ni sii moom it day kenn ci dëkk bi di Serigne Abdou Akim Fall moom Serigne Bassirou Fall alxuraan ren jii am na ku mokkal alxuraan ci daaraam ak Serigne Modou Mbacké moom Serigne Sam ak Serigne Abdou Baaxe Lo moom Serigne Dame Bale ak sëriñ Buna Sidi Kunta di waa Ndànk Kunta feggoog sëriñ Babacar Kunta ak ki nga xamante ni si mooy oustaz sëriñ Amidun Kunta mi nga xamante ni ku ne ràññee na taxawaayam ci dëkk bi yor fi daaray alxuraanu vacances ak sëriñ Mam Bala Mbàkke Mesere ak sëriñ Daam Mbàkke moom sëriñ Saam ak sëriñ Mamor Ngaay di imaamu ratib ca Ngaay ak kilifa yi nga xamante ni si xëy na xel day fàttu mbaa ñuy doog ak si yëpp nekk ci jataay bi nuyu tamit wóllëre doonoon kenn ci alaaji ndaama jataayam ak dikkam wóllëre waral ko muy sunu waajur alaaji jaaja mbay Kébémer moom it mi ngi ci jataay bi alaaji waali seen ak ni mu àndal ñëpp jóge pëleen ñu ngi leen di dalal nuyoo xarit yi ak soppe yi ak wóllëre yi buñ ko tegee ci loxol Serigne Talla sàmm ñëpp dinañ ci jot nuyoo gore yi ñu teg ko ci loxol Serigne Gan Kan ñëpp dina ci jot kon ñu ngi santaat yàlla bu baax di rafetlu waat liggéey bi di ñaan suñu borom lépp loo xamante ni si jàng nañ koo fi ci alxuraan yàlla ko sama borom ful def ko aw yiw defal ñu ci fajuk ajo saayir ak baatin defal ñu ci fekkee ko ay déwéni déwén te bépp tawat ak jàngoro ak jafe-jafe boo xamante ni si nit indi na ko ci jataay bi suñ borom mi man te am tey def yàlla ko suñu borom saafara ci darajey alxuraanu karim di wax ni nag cérémonie bi incha allahu rabbi ñu ngi koy def ginnaaw tàkkusaan ca kër Serigne Dan ñu bëgg ñëpp teel caa teew ñu mën koo teel def delluwaat ci kër yi mën a jublu ci li nga xamante ni si mooy reer yi ak bernde yi ndax ren programme bi tuwaar fa kalla macha allah dafa saturé ñu bëgg à partir de minuit ñëpp ñëw ndax Serigne Gana Messere dina ko waxtaanee saali wu Samb mi ngi fi saali wu sekk alxuraan mi ngi fi te kenn ku nekk ci ñoom mate nga guddi Serigne Khadim gay léegi ñu ngi ko bàyyi kër Serigne Dan Fall Serigne Mandak Gakou ak ki nga xamante ni si mooy Alaaji Daawda Fall mi nga xam ne moo ko yàgg a teewe saa su nekk mi ngi fi Serigne Ngañ Fall Mbour ak rakam sëñ Aliou mbay moom it ñu ngi koy nuyu di ko gërëm di rafetluwaat bu baax tax waayam ci liggéey bi waaye ki nga xamante ni sii moo dalal gan ñi di dere ci Serigne Touba bokk ci kër gi dëkk ci dëkk bi te jiite li nga xamante ni si mooy association Touba Fall bi nga xamante ni sii tuwaar fa kàlla macha allah noppal nan Serigne Modou Fall ak Dan ak Ablaye Ndiaye ci liggéey bi muy Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Modou Makhtar moom Serigne Cheikh Awa Balla ak ñi nga xamante ni si ñoom la àndanteel ci liggéeyu Touba Fall bi yëpp. Serigne Assane Gueye mi nga xamante ni si moo jiite ndaw ñi ci dëkk bi nga xam ni boobaak léegi noppaluwun ci wàllu set setal ak defar li nga xamante ni si mooy dëkk bi ak organisation bis bi àndante koog Serigne Ousseynou Fall ak maam Alsaan ak ëmma ñoom ñu nekk seen ginnaaw di leen jàppale di wax tamit ñi nga xamante ni si ñoo nekk ci diaspora bi te seen kilifa di maam Mama Fall teewal leen fi ñoom it ñu ngi leen ñu ngi yónnee seenu cant ak seenu ngërëm jëwriñ Serigne Modou Fall di yónnee waat bu baax di sàkkuwaat ñaan ci ñaar ñoo xamante ni si dañ doon jàmbaar loolu ci liggéey bi te daan teew at mu jot muy Serigne Bada Ndiaye Sénégal Broderie ak vie mi nga xamante ni si moo nekkoon technicien bi ci kër yëpp yàlla na suñu borom yërëm leen maa ngi leen di yéene waale sànq ci kaamil bi ñu ñaanal leen bu baax a baax Hizbut Tarqiyyah ñu ngi may yónnee di leen sant ñoom tamit di wax ni yónnee nanu délégation kon waxtu wi dafa xat loolu mooy li nga xamante ni si moo nekkoon kaddu yi bu ngoonee incha allahu rabbi ca cérémonie ba kép koo xamante ni si wal ngaa jël wala koo xamante ni si tudd woon di leen fa tudd ñuy sàkku teewaayu ñëpp te mu teel te mu teel incha allahu rabbi bu guddee ci baas bi à partir de zéro heure ñëpp teel a daje ndax li nga xam ne mooy yéene ak mébét ñu mën koo tënk ci li nga xamante ni mooy guddi gi di fàttali ñëpp ni daje bi di waxtaan ak bernde neex na lool waaye bis bi guddi gi lan wax ndax tey jii mooy fukki fan ak benn du guddi fukki di fukki guddi ak ñaar muy guddi gi nga xam ni ci la Seydina Mohamed feeñ moom la mag ñu baax ñi daan rawantee di ko jaamu yàlla di ko daje di ko zikkar di ko tudd yàlla kon képp koo xamante ne si ñëw nga ci dëkk bi tey gan baa ngay dëkk na ñëpp maase bu guddee ñu daje ci baas bi mëne waxtaan ndax am na nañ ay yéene ak i mébét am foo xamante ne si bëgg nañ faa jëmale dëkk bi waxtaane ko ci mbokk yi waaye waxtaane ko ci mbaaxu Seydina Muhammad kon ñu ngi ciy sàkkuwaat teewaayu ñëpp di xam le ni suba dañ koo jagleel saaba bu naan jaxfar kon it ñu ngi ciy sàkkuwaat teewaayu ñëpp ñoom it ñu ku mën a xamante ne si mën ngaa yendu bëccëgub suba bi ni liggéey bi dafay continuer bis bii la alaaji ndaama daan def ay doomam dañ koo yokk waaye wàññiwun ko lépp lu baax lu mu ci daan dox ak di ko def bu alaaji ndaama ni woon tëlu jataay bi kenn du ci soppi sa toogaay nit doxawu fi noo xam ne daawoo ko doxe ci kanamam nit toogawu fi noo xam ne daawoo ko toogee kanamam nit jëfu fi jëf joo xam ne noo xam ne daawoo ko jëf ci kanam alaaji ndaama ba tax na magi boppam ja nga xam ni lépp loo xamante ni si Serigne Touba daawul wax ku la jur daraan wax ku la yar te yar alaaji ndaama jàngal ko métier def ci moom li mu def ci moom muy Serigne Modou mbay Mexe moom lañ tuddee li nga xamante ni si mooy atum ren mi di gàmm ak mu xeex moom tamit ñu ngi koy ñaanal ci kaamil bi yàlla suñu borom dolli yërmande ci koom te dolli leer ci koom di rafet lu baax te waayu njabootam gépp loolu moo doon kàddu yi waxtu wi jege si ne kon ñu waajal fas yéenee julli tisbaar lillahi kulli bila waswaase اسمه جلاء بلا وسواس وسواس لا يكل بلا وسواس اسمه لا ابي نواسي لا يكل بلا وسواسي أداني الله بلا خفاسي وخاد الردوان في أنفاسي بلا يفاسي يفاسي وخاد الردوان أداني الله بلا إفاسي وخاد لردوان في أنفاسي بلا إفاسي وخاد لردوان في أنفاسي هداني الله إلى إباسي وخاد لردوان في أنفاسي بلا إفاسي إفاسي وخاد لردوان في أنفاسي الذرية شكر jalti bi sabal bi diw yi di way garab yi meññet mi ne saf sap yàlla janti bi sabal ci seydina muhammad sap sap xayral wara weer wi sikar bi sabal bi diw yi di way garab yi meññet meneex sap sap yàlla jant bi saban ci seydina muhammad sap sap xayral wara weeru sikar jant bi sabal bi diw yi di way garab yi meññeen mene ak sap la yàlla jant bi sabal ci Seydina Muhammad خير الورى فمستفى تيمولون بابام بابا باباتي باتي گت مسكي گانغا فاي خين باتي الله تيمولون بابام بابا باباتي بابا باباتي مسكي گانغا فاي مانغا فاي خين atum juddoom ba lu juddu yu góor jigéen judduwul moo ma at ngir nga magal góor ga yàlla atum juddoom ba jigéen judduwul waay wute yaa nga gën a soowo ama mawlidi taarix ba nag moo di amal fili ba yónne ñëwee way wute yaa nga gën a soowo ama mawlidi tariix ba nag moo di amal fi li yàlla tariix ba nag moo di amal fi li mooy at ma abraxatay tàggat ña yam ya di wër ngir mabbi kan batara bil arsi yàlla gaañi tàggat ña yam ya yem ya di wër am abbi mooy at ma abraha tey tàggat ña yem ya di ngir ma bi batara bil arsi yàlla gaañi tàggat ña yem ya ya di ربي خالت ملائكته رحمن يوم بدا نبي تربية المختار يا الله رحمن يوم بدا تربية seydina muhammad ci yetti weer la taxaw ànd ak xale yi di dox juróomi weer la dër mat sëkk yàlla la taxaw Moustapha juróomi la dër waawa nabi màggug bisam moo di màggug weer ci doomi arab weeram di am at ma dimlim fa yàlla màggug bisam Mustafa weeram di am at nabi wa kallama naasa lima bitaji min suuri fasi an nutxi Allah lima bila nabi ci fukki wela ni jàndang moom lampa ñuul la fa ñuul di pili pili wax di waaxu wey fa yàlla Mustafa pili waxu wey fa ba tabal ca yaari daxas ko yoo ku gay ikam mooy waare yàlla naaka ñëw xar danam yaari loxo daxas ko ku ikam mooy waare yàlla nabi xaatim ko tampe ko fa baatin ba pesam watu junni malaika fi diwaan Allah xaatim ko tampe ko fa baatin ba pesam wata junni malaika rabbi junni malaika waati Allah Seydina Muhammad sa daraja raw leen junni malaika waati Allah Seydina Muhammad sa daraja raw na leen junni malaika ati Allah Mustafa leen junni malaika ati Allah Serigne Khadim bu dugal dañuy wax ni na ci gëmuñu tubaab kon ñu ngi lay jaajëfal ci turu njaboot yëpp di wax ne suñu xol sedd na xam nañ jéego yi nga dox ak li nga bàyyi bi ak si bii waaye jéego yi dikk gi ak dellu gi yàlla nekk yiw yàlla na nekk fekk Serigne Touba Serigne Khadim Mbacké moom Serigne du Baaxe moom ma Massamba nga xam ne mooy cërëb dëkk bi sëriñ Serigne Ousseynou Fall mi sanc dëkk bi keroog ba ko Serigne Touba yeewee dañu ko demal tegtal ko fii nga xamante ni si mooy dëkk bi muy ak daqaar ak kadd ak looro ni ko Dakar ga wet ga génn féete gànnaar dina fa am reen bu ñu fa dagg talu mooy daxaar gi ci buntu kër Serigne Modou Mbacke Fall te bàyyi alaaji ndaama wërale ko ñu ko demal foofa xaar fa yàlla Serigne Massamba dina la fa indil sëb cër cër ba ñëw na kon tey soo ñëwee Serigne Khadim moom Serigne Abdou Baaxee toog nii fekk jotaay bi jiite kaamil bi ak njaboot gi yëpp sant nan bu baax te lay ñaanal ci barkeb Serigne Touba Serigne Abdou Akim Fall moom Serigne Basirou Fall alxuraan ne ci dëkk bi moom it yor fi daara fekk fi jotaay bi ak njaboot Serigne Touba yëpp lim juum alaaji Daado Fall bu xeex a ngi nii waaye li ñu fa wax lépp ci ndigalal alaaji Baara Fall bi nga xamante ni sii mooy xalifa bi tey te rakkam Serigne Ngagne Fall ak rakk yëpp ñu ngi jotaay bi bis bii nag na ma ko waxe woon dañ koo tuddee magi Alaaji Ndaama di xaritam doona léppam yor ko jàngal ko métier yar ko di Alaaji Modou Mbaye jabatam yëpp ñu ngi fi teew loolu mooy li nga xamante ni moo doon waxtaay lii diggali nag mooy ñu delluwaat ci kër yi xéewlu julli tàkku saani suuf ñëpp teel a génn daje kër Mouhamadou Dan Fall waaji li nga xamante ni si mooy cérémonie officielle bi bu guddee zéro heure ñu daje ci base bi